amna mbekté bu reey reey mané le titre foncier bi mok bañ may remettre suma diplôme docteur vétérinaire tay mbekté bima amone tay mom la laa tay parce que xamna valeurum valeur Sénégalais bu nek am fumu mu dëkk pour man ça rentre dans ce cadre. touti wul kon nak kuñu ko jox sa way jox nañ lu reey donc il faut remercier le président di ñaanal jamm ni mu gaawé maa la semaine passée la équipe cadastre ñew suma kër. def def ay ay relevé ndaw sax bi relevé dans deux ou trois mois d'une semaine ñu ne ma na. ñi am permis d'occuper yépp nañ xam ne mën titre foncier honnêtement man man dañ ko loi bi euh, solo la loi de 2017 bu ñu assemblée euh, président jëmmal ko jël décret en 2018.

je pense que tous les citoyens peuvent un am titre foncier à travers cette loi là. Pour avoir ce permis d'occuper il ngay dem karas rek nga am euh, sa nikat am plan de déposer c'est très simple Pour déposer nous devons def euh, ligue, bi euh, de démarre sur le terrain le morcellement nous ñu ñu créer titre foncier et puis il faire fay je pense que l'homme est nouveauté Il faut que action soit maintenue à saluer Nous ngi féliciter son excellence monsieur le président de la république que xamante wax population yi ndax li li li dans le passé musul am donc euh, ñun ñu bu baax. moins de deux ans créé nañu 900 titres fonciers c'est l'occasion de remercier et de féliciter wax agents yi ak collaborateurs yi moy ñi nek je pense aussi euh, demul des sur le terrain def travaux bu ñu defee liggéey boobu ba pare ñu door indi conservation ñu créé titre bi. titre foncier boo ko amee tey mën nga dem ci banque yi nga am xaalis bu bëri liggéey donc opérateurs yi loolu la ñu wër moo il faut ñu créer les conditions pour ñu faciliter effectivement euh, l'acquisition de ces titres fonciers là pour toutes les populations. moins de deux ans créé nañu lu ëpp 900 titres fonciers loolu maa ngi c'est l'occasion de remercier et de féliciter wax dëgg yàlla suñu agents yi ak suñu collaborateurs yi muy ñi nekk je pense que aussi euh, kenn demul ñu des ñoom ñooy dem sur le terrain def travaux morcellement yi bu ñu defee liggéey boobu ba pare ñu door indi conservation ñu créé titre bi je pense que ñëpp si jàpp rek ñëpp si jàpp ñu xam ne ne aussi euh, euh, développement dafa dafa dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a jëmmal parce que euh, titre foncier boo ko amee tey mën nga dem ci banque yi nga am xaalis bu bëri liggéey donc opérateurs yi loolu la ñu wër moo tax il faut ñu créer les conditions pour ñu faciliter effectivement euh, l'acquisition de ce titre foncier là pour toutes les populations parce que loolu dafa am le xamante cest lu am solo wax euh, en bonne voie avant mars 2020. Malheureusement, la malheureusement Covid bi a wax et changé modifié considérablement les prévisions mais nous ngi ñoo ngi quand même am nañ yaakaar xeyna d'ici euh, fin d'année dinañ def le maximum quand même pour ñu atteindre l'objectif de 12 milliards